aussi engagé dans la formation continue des hommes, des femmes, des adultes, des jeunes ou même des vieux. Une formation multidimensionnelle alliant pédagogie, profondeur et rigueur scientifique. cheikh Nena Amna am na faydu bu ñëwiti ci sama tariqa ñépp danañu riir dugg si ci waaye jamono ba ñéppi riir ñëw ci sama tariqa ko duñu ko keroog ñi ñu gën yaakaar ca nga di yërëme ndax ñuy xeetu coono ñoom lañ koy teg moo tax bu ma gisee ñu jaxase àdduna pexe yu ne ñu di ko def pour jot ci nit ñi damay wax ni est-ce que jàng nañu aaya boobu ndax bisa ngi ci ëllëg yàlla du la laaj ñaata muqaddam nga am bisa ngi ci ëllëg yàlla du la laaj ñaata président daayira nga am bisa ngi ci ëllëg lenn dong la la yàllay laaj moi lu baax loo indi. Jamais homme n'a été aussi courageux à affronter la fureur des partisans de la force du mal, qu'ils soient politiques ou même religieux. xëy na ku nekk yaa mais dina am beneen dafa am côté base ak côté sommet côté base bi mooy nga xam ku ñu la boole.

un Jamais homme n'a été aussi rompu à la tâche d'un éducateur pluridisciplinaire et hors pair. Même scénario li Serigne Babacar yi mu joxoon Serigne Cheikh mu doxal na ko boppam ma ñëw ci Serigne Cheikh ni ko gis na Serigne Babacar bi ci deux heures du matin jox na ma ñaari ñaari bi mu ñëw ci ñu mën ma expliquer ko que ઠેર આંગણી اربجنات أملكي بإبرياء مني يبعد بخطها النوراني مولي اللجنة دي نعمري كلي مواقم ولجنة بالدز مواقم أولا يهدلك من لخان من مكوي بينك xamuloon ni donn fauteuil yu nit ak donn ngëneelam bokkul bu fi sa way jur nekkatul wala yu mel noonu ñu laa fii la daan toog léegi yaa fii toog boobu am na waaye mën nga fa toog te la mu daan jëriñ nit ñi doo leen ko jëriñ mën nañu transférer fauteuil mais kenn mënul transférer motu nit moo tax am na ci lu nga xam ni sa baay du la ko may sa maam du la ko may yaa koy ñafe lu dul loolu kon ñun da ngeen defa ni dañuy ñëw fii rek ñu jox ñu responsabilité bi ne ñu yeew rek sant si pour di jël ko mais kon ñu sant si ñëpp doon ko bu ma wax soxna Kiné bu Serigne Cheikh bi ma tuddee soxna Fatima mën ko kër gi ñaari domaine la domaine nu deret ji ak domaine nu jàng gi man ko domaine nu deret ji ku sant si ci nga bokk waaye jàng gi ku ne yaay liggéeyal sa waxtaan Jamais homme n'a été aussi constant dans ses prises de position et les principes qu'il défend. Il est plus que constant, mais permanent, comme disait capitaine. Gourgui, vous n'êtes pas constant, vous êtes permanent. Jamais homme n'a été aussi éloquent, élégant et pertinent. Jamais homme ne saurait l'égaler. mais de leen yëg ni am na lu déclenché ba noppi. son lu mën a xewit dañuy ree rek waaw ndax loxo yàlla bi mu te ken mënul fexe mu bànk ko nag Wa, waaw incha allahu waaw te tax na kon nag ku yóbbu rek dugaat ci biir rang bi waaw waaw xel lu باخلو نيو ما لين كو واخ بالله والكتاب فاتحي لما اغلق لن لن لن تول واي سيغلق الباب يوما دا دا نخ نعم، دا ني ديفاني بور كو نو ام بوفارو ياك ني ني ديري ماي بو ني سيرين شارع وكو من نيت كو يالا بيتي كوما غنا خام سيرين شيخ خام كوكو سيرفير تيرو لي مكو سيرفير اوسي امون nga sant nga sant leneen na yam ni ma gëme ni moo doon yonent ni ma gëme ni moo doon cheikh ni ma gëme ni moo doon cheikh alxaaj omar ni ma gëme ni moo doon cheikh alxaaj malik ñi ma gëme ni noo moo donn Serigne Babacar Sy ni ma gëme yooyu laa gëme ni amul beneen taalibe bu dul man bu lu ma fortaat wala may tiitaru ku ko ko du dëgg doo faraan Jamais homme n'a été aussi utile à son pays sur les terrains religieux, politiques, économiques, social, culturels, éducatifs, intellectuels ou même spirituels. des résultats dans un domaine qui est beaucoup plus important parce que eh, c'est le, le, domaine de la spiritualité Même est-ce que xam ban résultat la daayira bi ubbi ngir ci ni ko est-ce que xam nga ko man xam naa ko fi ma

mu ni ma yow Moustapha dafay sa mais da ko fan xëy na fan sax la ko mën a tudde ba tey nangu naa parce que am na langage yoo xam ni jamono mooy dem ba nu tudde ko noonu wante ma ni ko xëy na yow noonu nga ko dégge mais ku nekk ak kala jag yu ruur ñun am na ñoo nga xam ni ëpp nañu dañuy seet ñi nga xam ne ñoom la ñu tollool te itamit xëy na ndem yéen yéen a mën a wax gën ñun ñi nga xam ni depuis sunu naissance ak ñoom mo ak moom mii ndaxte deret taxul may wax moom xam na sant taxul way wax moom xam na kon nag am na loo nga xam ni moo bu ko nit ñi gëmul ñun gëm nañu ko ko nit ñi comprendre ñun comprendre nañu ko su ko nit ñi déggalul ñun déggal nañu kon nag maa ngi lay ñaan si bu la dara naqareete parce que am na ñoo xam ni ku nu gëm wala ñu déggal la ku la waxati rek dafa fekk amul xam-xam Serine Mohamedou le est un guide religieux de type célébral qui, grâce à une nature ingénieuse, a une aptitude à faire assimiler à ses disciples des données du savoir pour amener chacun à être capable de faire face aux énigmes. loolu laa ci xam de ah li ma ci xam mooy yokk ñaan li ma ci xamit mooy nangoo am kilifa parce que jaxaan baaxul parce que li nga mënul ki la ko mënal defal la ko soo ko jéggee loo dofet defati rek war la